abu tarki naa nga yëngu tuuti. non non neexal ko comme ñëwul. yaa fi ne kay. waaw waaw yëngal ko. abu déet déet ah bu ma jaawaleeg Pape Ndoye bëri nag Abdou Seck mële moo gën a woon Abdou Seck maa ngi lay ziar di nuyu champion bu mag bële ah <laughs> ah laal ay bul maa ngi gis benn kombaam ci tiktok bi jël bu rëy la daan waaja ak a mën a laal am na komba rawaan benn rawaan bu parcelle bu rog énergie loolu dina metti loolu njar ndéem la Père Max day magum làmb la yàlla na gudd fan rek taxawal nii abu fii nag moom Lamine kaay Lamine kaay kaay kon Fadel Fadel kaay yaag pël bu rafet kaay leen pël kaay pël pël kaay jiili kaay jiili kaay leen numéro 2 combat bu neexoon waay boobu ndeysaan kii ñu taxawal gaa yi pour ngeen xam rek képp ku dégg Siteu wala foo gis Siteu di nga fa gis abu ñaas loolu yàlla dogal na ko danga nga gis Abdou sekk Mële gis ah Baye Ndari gis gaa yi ah daan daan Adama Gueye daan na sax defe naa ne daan na seex super jamono moom mii yaa ngi dégg ak Saamu Kaani moom Abou Niasse kon ça veut dire que ca Gàmbi lañ ko fekk Lamine defe naa yaatee woon bañ koy wax mu ne damaa bëgg a bëre ñu ne ko yàgg Pape Ndoye est-ce que du combat mu ne nañ ko dox mu ne bëgg na ne nañ ko nañ ko dox jamay kee dox ko mu taxaw kon abu yaakaar naa li tarkindaay wuyoo seen bopp rek fa la taxaw ñoom ñoom bu avance ñëwee dañuy lekk ndax per per mag say seen papa te moom tarkindaa bu mag a mag la Abou mag ngi lay ziar. ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yeneen bi di sant samay ñaari waajur. di santaat samay ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan maa ngi koy santaat bu baax a baax a baax a baax ndax amu ku dul moom mooy sama wasila moo ñu dimbali def suñu dëggi dëggi taalibe def suñu dëggi dëggi Baay Faal li si des nag xam nga man daal tey kontaanu ma quoi. ñëwul de Pape Ndoye looy wax ci ñàkk ñoom googu. waaw parce que gis nga ñun sax boo leen seetaanee sama interview. boobu ba léegi si dal laay de ak jàmm ak yar ak teggin ak fair play maanaam moom dafa waroon ñëw quoi bu ñëwoon si lay dàq torop hmm. waaw. mais amul looy xalaat ci Pape Ndoye. wax dëgg fa yàlla yàlla rek a tax may wax. waaw ma toog sax ba koy bàyyi xel wala dara. doo ko bàyyi xel. du bëri bi du xeex bi. respecté naa ko nag mais bàyyi ma ko xel ci dara. Hmm, bàyyi ma ko xel ci dara. Hmm. def na sorti lu mu wax mu doon waaw du seetaan waaw parce que euh, yow kaay avancé tuuti abu abu kaay Pape Ndoye seetaan nga sorteem nee na raagu 10 minutes la bëgg fi xeebu fukki minutes. waaw ah, mais xam loolu amul chance Lamine loolu muy wax noonu amatul chance parce que bu bëggoon moom chance day ñëw fii quoi. est que da lay xaar Iba Mar loolu la wala fii dafay waroon a ñëw. déggoo ñun fu ñu mën a xaar ñun pare nañu. Uh-huh. waaw. bare ngeen. yàgg na. bërki démb fii ngeen jóge yéen waa Lamsar am fi ndam lu rëy seen diggante ak double moteur nga war a ñëwaat le mu mel ni kon da ngeen di delloo buum ca booy booy ba wala nu muy demee. kese tam jëliwaat ndam li jox ko borom dëkk bi Siteu. yàlla mbin waaw borom dëkk bi. du moom di woowee yàlla mbin. mooy borom dëkk bi moom la rek. Siteu. waaw mooy borom dëkk bi bu fa jugee jox ko mu dàbbali li ko jugee ñu jox booy yi des. ci loolu. Eh. waaw rëg rëg tamit ñoom ñëpp ay. bul da ngeen ko fas yéenee joxante. waaw si kattanu yàlla bu maamalan bu paree jox ko bu laal jox ko rëg rëg gaa yi tund bi. mais jeune bu toll ni jamaïcain nii di xale macha allah nekk xale boo xam ne dégg nga léegi li mu doon te lim te lool lépp am na ko ci carte ci làmb muy koo xam ne tey am na mérite parce que làmb maanaam jamaïcain da ko internationalisé tas ko maanaam parce que tëgg na Gambie te Gambie ab république la kon tey jamaïcain mi loo koy wax. waaw jamaïcain ñu ngi koy encouragé ndaw boo xam ne xam nga jàmbaar la. xam wax sa baaxuwaay wàññiwul sa baax dara. ñu ngay encouragé mu gën a gëm gën a jàpp làmb tëgg dafa métti. waaw ah, mais tamit maa ngi ñaaxaat mbëri bu ñu leen tëggee na ngeen gore andi supporter. Hmm. xam nga jàppale promoteur bi. waaw comme amul te làmb ji gaan gars yi dañu war a jàppale làmb ñun làmb la ñu am fii Sénégal làmb moo fi nekk. ñu nangu ko moo fi nekk ñu bañ ko moo fi nekk. nañ jàppale promoteur yi promoteur yi jàppale mbëri ñu liggéey mu jëm si kanam. ñu si kanam. Ah, pël ne na ndax góor da yërëm góor pël la ko laaj de. non loolu ay waxaat la rek ndax góor moom boo yërëmee góor sax man ko doo góor. Ah. waaw te wax ji jaru muy bëri ko ah. waaw maa ngi sant booy yi ma àndal ñëpp nag. waaw ndax booy yi bi ñu yëgee signature bi. nee na dimanche da ngeen war a def benn signature yéen ñaar 2STV. ndax xam bi signature bi sànq laa démb laa leen ko wax. Hmm. mais fu nekk nit jóge na ma mais bi ñuy ñëw lépp si dal lañ ñëwee ak yar ak teggin pour ñëw bëgg si signé mu neex. léegoo ñu nekk fii yëpp mën ak ñoom ànd. te mën hmm. nañ leen bàyyi ñu toog ci kaw. Hmm. du problème du am. non gaan waaye ñun ñun dépassé nañ ñun ay kilifa lañ léegi. ñun dañuy sensibiliser nit ñi léegi di leen wax nii la ak nii. parce que ñun buñ jugee nit ñu jóg. kon ñun war nañ mën di sensibiliser nit ñi te chaque jour si lañ nekk. Hmm. pour jàmm rek. pour jàmm rek. 2 euh, bi yaa ngi koy waajal dimanche face à face bi di def ak Pape Ndoye. yéen woo leen sama ménager rek Père sama kilifa la sama papa la. waaw lu mu wax rek loolu laay def. loolu ngay def waa am na solo macha allah jamay kee kaay. may sant. waaw waaw ñëw ñëwal di nga woote ba doyal. wooteel wooteel woote. di woo tund bi yëpp. di woo képp kuy bëggee njaase gi. di woo Lamsaar Diamaguène fas mbaaw Kër Masaar Ginnaaw Raay xam guy ga sam-sam maanaam man bu may bëri fu nekk la nit di jóge caare géej ba yaraax ba aseg naaya Grand Dakar ñaari tali diwoo woo ñëpp di woo nag gars yi nañ ñëw jàppale ma ndax samay gaayan ñoo may jàppale chaque jour damit ñun duñu ñu am sax ñu ñuy jàppale suñuy gaayan ñoo ñuy jàppale te gis nga bi ñuy ñëw làmb moo tax ñun suñu làmb day métti Fallou mu may jàppale maa ngi woo mu gën si jàpp bala xam nga di woo gars yi ku si mën a jàpp ñu ngi lay woo di woo autorité jàmm gën Sicap Mbao Lamsaari parce que ñoom ñun parce que ñoom ñun lañ am te ñun ñoom lañ am. di santaat samay gaañ di sant waa Gambie bu baax a baax a baax. xam nga ma la. Ah. di sant Père Alla mu ngi siy jàpp gaaw ab waaw xam nga di saaj ñëpp di xam di jaale nag Père Aline Diop boobu lee amaguma chance. pour wax ko waaw mu nekkoon suñu paa boo xam ni xam kenn la si ñun doon ñu taxaw boo toogee sax di lii mun la hey da koy jaral mu mere la. manqué nañu torop torop torop torop. maa ngi koy jaalawaat waa këram. di ko wax nag xel bi du xelam du mës a jug si ñun. waaw di di jaale fi jugee ñëpp. waaw te sama gaayan Fodé. Mhm. kooku saa su ne day nekk sama xel munul denc man xam barke sëñ Touba parce que deret lañ di sant waa Gàmbi di woo képp ku ma mën a jàppale nga ñëw jàppale ma loolu la am ne Pape Ndoye amul dara lu ma koy wax nee na nee na ñeme na waaw waaw na taxaw dëggal boobu di sant Paate Gambia Moussa ñooñu aw ma seen fay <laughs> sant sama gàlle sama gàlle bi ma nekk noonu bu ma ñëwee déggoo añ wala reer bi ma ko joxul sax bu ma ko lekkul sax dañ may mere ñoom sëy na bu ñoom nday rakki di sant alo sama booy di sant ñoom yërmande di sant gàmm yi ñëpp di sant ñi ma daan ñoom Bek. ñoom Moussa ñoom Alassane. Mm-hmm. di sant di bëggee ñëpp daal. am na solo jërëjëf. jaajëf. maanaam